mbokki diaspora maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi suñuy kilifa diine ak suñuy kilifa aada di tàmbali di massawu sénégalais yi ci coono ak fitna bi fi nguur gi di tàggatoo teg bàyyil ñu ko moo tax kenn bëggatul dégg waxu continuité ñoom daal nañu lalli seen bagage te abal ñu te bu ñuy dem bu ñu fi fàtte seen candidat ndaxte sénégalais yi dañoo sonn feebar faju xewatu fi lekk ba suur jafe na njàng mi sooxee ndaw ñi di dund njàkkare ba mu jaral leen tayle seen bakkan ci géej gi jàmmi réew mi tagatembe askan wi wóolootuñu seen justice ak suñu institution jikko yi soppeeku koom-koom gi nax saay loolu la ñun ARC alternative pour la relève citoyenne ànd ak suñu coalition depuis jamonoy Senghor ñooñu la sénégalais yi bëgg yóbbu à la retraite ay njiit yu gëm seen bopp dëggal seen bopp ay njiit yu doon seen bopp loolu la sénégalais yi bëgg waxuñu ay candidat yóbbaale ma waxuñu ay ak suñuy ressources naturelles may woote démocratie ak dal ci Sénégal ñu tàppee xol yi dama di doom di yaay di soxna xam nu ñuy yiiree ak nu ñuy yaree njaboot maa ngi daggaan baatu sénégalais yépp di ci jiital ndaw ñi ak sama mbokk jigéen ñi mars dina dinañu wane ne benn sër mooy ëmb fukki tubéy ak juróom ñett te duñu nangu suñu élection bi ku ko salfaañee ensemble imposons une nouvelle ère politique car le temps de la relève est arrivé wasalaam